mais Ousse Babou baabu kontaan naa seen émission seen seen live yi day leen continuer leen di ko def. Ams. bro lii dama ci kontaan dama ci kontaan du nekkul Gambia moo ko moom lii Sénégambia la Sénégambia waaw dama bëgg lu bëgg ñëpp xam ko. te tey da ngeen da ngeen suma ndaanaan ji wow kii mooy suma artiste. <laughs> bu weesoo balaa kii bu weesoo Ams mii sama rapport ak ak ak ak Mame man kii mooy suma star. <laughs> waaw man lu may wax rek man lu may wax rek maa ngi jégalu dàgg naa ko damaa kontaan tey parce que bi ma gisee euh, advertisement bi dama kontaan trop ma ne xaaral tey foog ma fexe ba dugg gërëm ko encouragé ko. Ah euh, li ma metti Dakar côté boobu noonu nit ñi xamuñu ko lu bari waaye war nañ ko def da te loolu xam naa ne man ak am sa am ak Balla ak maam Balla ñoo ci war a taxaw. waaw bala Ranks gars yi dañ ko war a xam dañ ko war a xam biir Ndakaaru. te loolu ñu ci war a taxaw ndax lu muy def rafet na lool. waaw ñun bu ñu doon ñëw maa ngi fàttaliku bu ñu doon ñëw ci jamono yaay jam bu ñu doon ñëw dem kan yi laay nekk fa man ak moom même bu dul programme yooyu sax man ak bala ñooy nekk guddi sama suma gaa yëpp ko xam ñoom paa bi suma boo yëpp ko xam suma jarbaat ñëpp ko xam ngir lan humbleness bi mu am xool bu rafet yaatalal ñëpp doo ko mos a dégg mu fu mu complain mom dal ñaanal leen ko yalla na guddu fan ni muy wax ci wajuram ñoo buñu melul noonu mel mo tax doom ja mel non wala ni ñom am mel am ak mambal la ñu amé yar ni tek am sen ki tamit ci wajur yalla ha iko won ton buka akadi ngula wul nta nta futan do bayte yalla ko mu iyo abebe wulula wulula ko ko dinguna kuluta wulula kuluta siduŋol kuluwo ñama te wo kuluwo fanaŋ ntel le ñanta murun lanan comme koye ntel kuluwo o kuluyale kono nga murun nanga na dimbal ku ñu yar suñu doom yi ci loolu te loolu moo war a continue tey damaa kontaan trop baabu li nga def lii rafet na yokk ko yàlla na ci yàlla def xéewal continuer di xëcc artistes yi ba pare young generation nañu fàttaliku legend yi legend yi is very important they need the legends yeah te lu ñu gën a fight lu may yokkaat encore te loolu si bi yàlla amee seen légende yoo xamante ne xeex nañu ba ñoom instant yi nii ñu am lu ñu war a am da gis xale bu ñu ñëwee seen yoon newuñ ci ñun grand yi waaye bu mu tax kenn découragé bu soobee yàlla ñoom ñooy dellu si waat si ñun. loolu laay wax grand yëpp yoo xamante ne ñu ngi ci sound bi maam am xam naa yow yenn saay yi leen ma foog nga diyaamu bii foog ma wax. ndax Sénégambia mooy gaaw a fàtte seen i artistes.

di leen jàppale waaye nag ñu nekk ci mouvement bi gérer affaire bi moom laay wax chaque semaine ci suñu suñu suñu suñu suñu promoteurs yi managers yi seen fële Sénégal ma ne yéen a nga dawal loo xamante ne il faut ngeen teel tel ko anticiper xale yaa ngi démystifier grand yi xale yaa ngi euh, manqué respect les anciens faale tuñu leen te loolu dafa garaaw man ñun moom personnellement soxla ñu benn xale bu ñu yóbbu soxla ñu benn euh, nouvelle génération bu mais nouvelle génération moo ñu soxla kon nag nañu farlu ñun tel fawmul ngan teesiti kenn ndeke ngaay the real music maa fay mantra real music o kono but the good music the real music ntel mu yaalon tel long na ibinamol tar la jeele bu rafet looloo nekk ci balarang nekk si ñoom AMS nekk si ñoom Mambala ak ñeneen ñeneen loolu loolu lañu téye denc ko. yow moom non mais dafa am solo. Istilah gue Rofa Padugu malah deh. Karena boleh hmm. ya tuh. Amin. Coba. Pak Amun ada yang tak bohong, kan? dia pun kanilai. Hmm. Kita sih kanilai. Anak sorry, kita sih Pak, ini juga seperti itu. Wow. Motor. Wow. Mm-hmm. Siapa Baba Mbino mu ngi fa woon Sankare yes ñu dem Fapati mu ne boy ita la ita bay na la nit mu ne di ma be then after that waaye nañ dem si programme am après ñu seet ñu dem si programme VIP yi defuñu na si backstage ndeysaan ndeysaan ne li mën de <laughs> loolu ko mën a fàtte. waaw eh dama ko bëgg a dama ko bëgg a wax pour artistes yi nekk ak ñi ñu xam ne musique ah musique si jàppante rek yëpp musique amut aat feeling amut ay ñaan wallahi wallahi agen agen papa sama mag la si musique papa di moom di ko stade man stade ma woon yes waaye gis nga bés buñ demee. ay ñëw man maa war a play balaa faafa di play. ne liste moo fees. war a. dafa mm-hmm. ni man du ma play. ba pare dafa taxawoon foofu noonu mu ne man su ma play wutee. moom du play. yeah that's the faafa di ay noonu. Dégal dégal dégal dafa di ko ande boole day daa féere day daa daa waaye fa pañ pak bu ne balarang su mënuma pli ndeysaan ndeysaan papa di moom wow xam waaw rek ko waxtaane façon yi ye bala bala dafa bala ye min fɔ ten na hmm. hmm, hmm. yalɔ eh, eh, i ko mm ku buka siño ku kari ah. yàlla yalontelɗo probléme mundi euh, sénégambia nka ñinale ko muy ka faka bila kilinno dañ dee fàtte ni benn famille la looloo tax looloo tax suñ lépp taxaw sénégambia ñun ñaari dëkk yooyu no buñ ci joxoon doole joxante loxo fii west africa ñooy nekk ñooy nekk buur yi ñooy nekk seen buur te loolu suñu xeex bi yoon loolu la woon ndax amoon nañ moment boo xamante ne toll nañ fa lii dama xalaat wax musique sénégalaise ma ne leen dafa am luy ram bu jëm jëmee ca ñag ba suñu aar bi dina am problème te moom la ñu ñu di dund instant ni nii Ndakaar am xam na bu baax li ma lay wax ndax bu ñu demee ba ay ndaanaan yu mel ni am Mame Balla ñoom aam ak yooyu ñoo ñëpp kenn déggatu leen ñemewutuñu dem Sénégal am na lu am na lu xew de barki borom Touba bu ñu demee ba ragal ragalatuñu kenn ñemewutu la taxaw def fa dara ngir def affaire bu mbooloo def affaire u famille yu mel nii lañuy ñuy xeex parce que tey jii nii yow li nga def di dajale artistes yi nii surtout anciens yi di leen woo di leen jox courage parce que kenn xamul ñun ci yan ci yan jafe-jafe lañ jaar pour tax ta teg teg bi mu taxaw waa am pour teg musique bi mu taxaw tey jii nii jafewoon na ci ñun trop boobu am mu ñu nekk xale bu ndaw ndakaaru xamoon na hip hop bi amoon ay temps studio studio bëriwuloon ndakaaru géejawaay la woon studio Samak moom xam na bu baax wax ak ak tabal tabala musique ñaar ñoom ñoo fa amul. boy dafa métti yoon tellement pour nga am maquette. loolu genre jaamu yàlla la genre guerre la woon pour nga am maquette ba yàlla ñoo def ba tey jii nii ñun ñu xeex loolu ba hip hop bi taxaw. idée bu nekk di fight ak balax mi mais heureusement que grand frère yooyu nekkoon ci musique bi ñu mel ni ñoom Youssou ñoo Omar Pène ak Baba ak ñu jox ñu loxo ci hip hop bi. Baba Mal jël PBS. Omar Pène jël eh, eh, wala Youssou Ndour jël wa puis France ñu la ba mu kon la nouvelle génération n'a rien à foutre aux anciens ngeen français la koy wax moy manam sen yoon ci anciens ñu da ngay gis america sa da ngay gis ni que gaay anytime they do BET dañuy xol ben legend mom lañuy tuddé e bi have eh, you ñaata ndaanaan ngeen yor ci biir kër Gambia mais xale yi li ñuy def ci biir Gambia di def lu rëy da gis xale yi fu ñu demee coppeti euh, grand yi ñoo xamante def nañ fa dara xam nga tuddee leen dara wala defal leen dara duñ ko def loolu mooy continuer loolu laa leen di yëggal di leen xamal li ngeen di def nii ngeen ci bëre wax di expliquer bis bi seen time jeexee seen rax yi di ñëw def la même chose kañ lay jeex so nak ñun anciens yi ñoo war joxante loxo ñun ni ñu dundal affaire bobu mu dund té li ngay def ni babu dafa baax trop te ba jël émission sa way di wax rek mais dama contane quoi gis ko moom tay jii ni gis en fii yi sama ndara ngay invité dafa xaw rar dafa xaw rar nak rar nak bala nag su mu ñëwee bala dama ko jik ma koy yott ci biir Europe bi ma def dajak mom té autrice track mo nako yo ko nga fële na benn ma ne ko kan ko biti jànne mu xam bi daami ni mel la noonu ni nit ñi bu kankil mais yàlla ñoo def ñu def fële xam nga te tamit maa ngi ciy remercier tamit Taf Naanan Club mu ngi def lu rafet Taf Naanan Club mu ngi def lu nice si biir Autriche di dajale Sénégambia Jamaïcain yi tamit mais Sénégambia Gambia yi la Sénégal la jël ak Gambia tel jiital la ci kanam xam nga di ñu invité mais keroog moo dajeeg moom man ak moom lañu jël man ak Balarance ak King Pata ñu si ñu def affaire bu nice boo xamante ne beneen affaire la that's the family te loolu ci yéen ci yooyu lañu war a mën a continuer di ko dundal. tasewoon nañ tasewoon nañ Vienna. waaw foofu laa doon Autriche Vienna. <laughs> mais yàlla loolu lay def yàlla loolu lay def parce que xam nga yu mel nii dafa baax bàyyi di yokk ko di ko def. baabu lii ak AMS continuer leen di def lii continuer leen ko di woon daanaan yi ku ci nekk woon leen gars yi nañu fàttale ku ñun ñun yàgg nañ yëngal te ba tey ñu ngi yëngal.

bari nin dolgo mba fula muke mbe ke balle tinte kukela mbe tankun dinte kukela molbe nyina la mollale mais nga jele fana mba try kan be show kele be pool kela yaangi show yaangi def dara continuer lu mel nonu bul delu ginaaw de bul bayyi fancy yaangi fofu ñu ngi lay deglu ba ci new generation bi whenever you do new things billahi bala they will follow da ngay eh, xool gis nga mbambala saa yi mu génnee yu bees gars yi ne mooy kii fu mu ne ñu toppaat ci musique bu bees bi musicien bu du tok du xaar. artiste bu artiste de Ngo grand a moro nga continuer la musique ba challenge don't stop the talent is here you you do your thing anytime record la vidéo shoot la call. ke dindul fana wala ka na nakoto ntelle ñanta kuwol kela ka dindiwol killan ka foy kal nana lenga ɓe jang respect ko ye kafu you know bari nin kombe silan ɓe derin dula kilin kono moltinamol moyla kota ke nkole fon naduna mole jeli de rapporteur grand je bmj karin ka manuñol ke killen ka foy wa mais grand lalla ñun ñëpp njaboot lañ am sa waay musique lañu xam continue len why you won't stop ñoom fata stop ñu ha gars yi kenn stop gars yi ñu ngi door de démb démb fata mu ngi yoon ci eh, eh, white house moom ak dip wane fa ñun ñu ngi def suñu affaire Balla mu ngi def am affaire yi amul toog. amul toog de amul toog man taxaw naa bu ñuy bu amul toog bu waaye di def defal bëggalal nit ñi lu ànd ak lu xew nañu ànd ak ñoom way wéy nañu man moom la yàlla jox. lu xale yi ah génne loolu moo xew nañ ci def dara ànd ak ñoom parce que tant que deewuñu bu ñu man bu gaa yi ñuy expliqué waaye kii dafa xew kenn xewul ku dee mooy xew yi. Mhm. ginnaaw bi mooy xew kenn xew yi ah. boo noppee xew yi. alright alkakare ɗe ñin fondinkel mum jende won sisiyayti ñawo ñaw ibe molle ye molla génération génération ol fekkere estiñol doyel bentala génération teni ex adna ntefololala talon je e gambia nayi kujamalle ke anin demboñol ni fenkoñol ite fekkele akete defawo ñalale so bi mune atina parce que ndokoñol man stop akitele time ñaa ñawo ñaɓarayi man siinoo de sino boy mo a continuer kake dindul soltan dawɗa gate ni mo commandinga ta ma fo ni me commandide ba ni commandingue gate traje ngi ma koy burokrat na mo be na mun nan kana stop kana stop because yente alaykum wa bi wa barakatuh ila turo bi je nga hari samante la mas o kat blal tele ne yo kalanta o kat blal tele boy mas la betolom solto ñim patiol to gala ko dal tele bor jamal no ne meteje you see wala we need to continue continue mo ya yaklo blade en boy mo fon ni kemero la biti ke bab je ñaw ñaw boy fon ni kemero al nga continue ka fight te babu man ma ngi lay gërëm bu baaxa baax ma lay gërëm bi dafa nice am ma ngi lay gërëm bi dafa nice you know Wow! Wow! delo siar delo siar bu baaxa baax delo siar soxna si ba rañ

ala ala kulliyoɗi andi mbi balala ɗum onon mbiyte ba wonnani mbatta paɗi tan de mo ñëw jaynomanen <laughs> eh, ko kontaan naa kontaan naa lool hmm. gars yi kon man maa ngi lay parce que bugguma yàq bugguma yàq live live bala bi ça dafa am lu nekk sama xol parce que kii suma daanaan la ah il faut ma wax quoi ah. il faut que ma wax quoi ndax Sénégal ñu xam léegi sama fans yi fi nekk sama fans yi ci nekk ci biir Sénégal ñu nekk fii ñu nekk Europe ñu partout kii dem leen ngeen xool ko Balarangs mii ngeen dem xool ko ci internet bi follow leen ko yu neex lay doon dem leen ngeen xool ko kii ci kaw nag waaw kii ci kaw na ngeen di gis Amadou bi ngeen di gis nii rappeur la de waaye rakk mambal a Diouf la vacances yi neex na rap rek lay def mën na rap de mën na rap mën na wëy ci man fecc gars yi follow leen ko moom <laughs> mais kontaan na Babou xol sedd na si ça God bless. Kumdanda Bagale, you know. Okay, Ah, okay, okay, okay. Aita, Aita Amon. benn affaire boo xam ne nii man mën naa ko seede bi nga sof man. Mm-hmm. Um, waaw dama ne kër fa nekk xale bu ndaw. ndeysaan waaw comprendre. daan eh. dama daan jógee <laughs> dem bu midi naa. <laughs> kër faafat yi boo demee këram ah time boobu daawuñu daawuñu xaj néegu faafat yi. ndeysaan waaw waaw dëgg yàlla. Hmm. rappeur yi nekk Dakar yi. <laughs> Uh-huh. na ah. uh-huh. DJ musicien comme hmm. képp koo xam ne yaa yaa ngi ci musique biir Dakar. Hmm. kër faafat yi mooy nekk sa campé kaay. comme campé campé only campé boo xam ne ay musicien rek ñoo fay daje këram dañ néeg bi ay toogu ah. <laughs> ko. waaw nañ nañ ko laaj nañ ko laaj Singata Rice. Singata Rice bu ñëwee Ndakaaru <laughs> fa sama kër mooy kii am. non xam nga ndeysaan. Oh, Singata maa ngi koy nuyu bu baax ndeysaan. ak le grand nga dëgg fekkoon na la fa chaque laaj la.

yaa ngi doon dégg Pikine gaa yi na ak mbëri njaboot te njabootam yëpp lay mbuub indi ndax xam nga rek dama dama dul bëgg kenn mer quoi xam nga. Amadou ah doogu ma la de papa di ku baax la dañ daan daje kandilaay. ndeysaan. waaw baax la dafa fa am jàmm moom fu mu nekk rek ñun ñëpp dañ fa daan nekk nag di reer waaw wallaay wallaay ndeysaan dafa friendly ba bëgg a ku baax la nag waaw <laughs> dëgg la wax nga dëgg de wala nga dëgg waaw mais kontaan naa bàyyi bu ma yàq émission bi parce que bala waxagul bala mbaali de xeykat loon kontaan dala bii non soo mbee bu dala fa ñaata dawandi sewoto bakele alay kayro ke ay bundaal beyele a kafu kote ke mulɓe solare say dakar mbe batola jeltu dakaru foyi nana Dakar ni am mbooloo la ko rek ngay invité naa nga taa grand théâtre du laay téye ah du laay téye waaw Babou kontaan naa waay kontaan naa bu baax waay maa ngi leen di bàyyi waay maa ngi leen di bàyyi bu baax jërëjëf jërëjëf jërëjëf merci beaucoup